Good. teewluwaat rekk ndax kii bëgg a jël kàddu moo tollu noonu muy sëriñ Mourtala Fall way juram la sëñ Modou Moustapha meññ kon nu jàpp ne kii wax kuy doxoon sax war ngaa toog maamam sëñ Modou Moustapha borom bis bii nee na lu dul jur rek sëñ Modou Moustapha moo ko defal muy sëñ Abdou Lahad kon war naa wax ci bis bi war naa dalal gan yi ndax bisam la doy na sëkk ci lim liggéeyal yoonu murit moom sëñ Modou Safa ndax waxtaanaguma nag dama damay damay wane rek kii bëgg a wax doy na sëkk ci lim defal yoonu murit est-ce que xam ngeen ni intelligent ci sëñ Modou Moustapha la dëppee xam nga lu tax tubaab yi bi ñu ne bi ñu bi sëñ Modou Safa waree gas raay bi dañu ne ko autorisation bi fekkoon juróomi million am fi ci yoonu murit ñu laaj ko sëñ Modou Safa mu jox leen biñ demee ba war a bi ñu ne ko manœuvre yu ko gas sëñ Modou Moustapha leen am naa ko murit bu ne murit bu ne ne sëñ Modou Moustapha damay gas tubaab yi na leen ñetti junni murit lan soxla dal ne sëñ Modou Moustapha na leer ñii gas raay bi gas daal maam Baba Thioune doonoon ab géwél daal di ne Moustapha yi laa koy jox engagé te loolu mooy xanaa nga bëgg a ko tubaab yi ne ko ñun ay àddi ak yooyu sunu yoon nekku ci da ngay fay ku ne maam Mor Mbaye sëñ Jiili nangam diw rappel ñëpp jox leen seen i fukki dërëm sëñ Modou Safa ñetti junni lay joxe. murid yi daal di koy dajalewaat jox ko seen jëwrin tubaab bi daa mujj jaaxle ne kii mooy fay murid yi rek. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mawlana muhammadin rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahabati di sàkku mu tegal na ko ci loxol ganam yi fi teew ñëpp li ko ci tàmbale ci sëriñ Mourtada Mbàkke dar bi ba ci mbokkam yi sant Faal di maam Lamp Fall ak Cheikh Abdoul Ahad Fall ak ñi fi des ñépp nga xam ne nii <clears throat> xëy na jotuma leen a ràññee li ci tegu nuyoo itam ci koo xam ne nii sunu mag la muy sëriñ Abdul Ahad Gaye <clears throat> su ma nee suma mag la nag moom xam na li tax ma wax ko ndax mook sama mag Abdul Ahad Fall <clears throat> ñoo bokkoon nekk ci keppaaru Cheikh Abdul Ahad ci ak ndaw suñoo tàggoo benn yoon damay wax ni ko sax a xamandoo noo ngi sant sëriñ Jili nag bu baax muy bis bu am solo boo xam ne suñu sañoon duñu ko wuute mukk ndax maa ngi koy wax sànq sëñ Abdul Ahad ñépp ko bokk waaye kenn la koo xam ni dañ ko war di jàngale dañ koo war di xamle ndax li ñuy wax xudduwa mooy ku ñuy roy dafa yombut te sëñ Abdul Ahad day nit koo xam ne nii li tubaab di wax multidimensionnel moom la dafa bari ay wàll wàll koo xam ne genn ku ci nekk warees na ko caa jàngat mu doy sëkk sëkk am njàngale bu ñu waxee sëriñ Abdou Lahad ci ak taalibe nam ko doon doxale ak nam ko doon dunde ba mu fi nekkee ñi ko mag ba bi mu nekkee sëriñ Touba ñi fi nekk ñépp di ay rakkam nam doon doxe dara soppikuwu ca ñi mbokkaloon sëriñ Touba nga xam ni moo leen mag da leen defoon ay kilifa defloon ay sëriñ lum masana <coughs> luñ masana am luñ ko masaane indi itam am na foofu bu fa àddee jotee moo xam lu mën a doon da leen koy séddilaat am na ku ma wax ni ma ba bis bi mu mujj nekk ci àdduna camion boo xam ne nii ay fur wi ak yëf moom la mujj yónnee séddale ko waa kër sëñ Touba ñëpp sëñ Abdou laat doy na sëkk misaal ci ak taalibe fonk sëñ Touba ak ak gëm ko ak nangul ko fu mu masaan a wax fu nekk dana delloowaat mbooloo mi ci ak taalibe wan na leen ni ñun ñëpp kenn lan bonu yaakaar te suñu yaakaar yëpp ci kenn loon ko sës muy sëñ Touba. sëñ Abdul Ahad doy na misaal ci ab sëriñ nan la war a nekke ci biir ab etaa ak nan la war a jëflante ak moom xam na ni boroom njaboot boo nekkee ci am réew ñi yor réew ma danga leen di soxla ñu di la soxla kon fokk ngeen maslaa waaye nag maslaa ma lu mu bari bari nga am sa fëlëb yu toll ni li nga boobu nga téye ko ba ba mat sëkk ka nga ànd itam lu ngeen maslaa maslaa waxtu wu jàddee aw yoon lu mu rëy rëy nga wax ko ba ñëpp dégg ko mësta ragal position damay wax ne sëñ Abdul Ahad mës def luñ koy miimal ndax lu mu def ñëpp xam ne lii moo ko defal boppam te moo koy waxal boppam itam sëriñ Abdul Ahad doy na xudduwa doy na misaal ci nan lañuy war yore yanu sëriñ Touba bi ndax yan bi bi mu ko yoree li muy diis diis diis diis daf ko bokk ak njabootuk sëriñ Touba gépp <coughs> génn ci nag waa këram mboolem ñi mu doon jëflanteen di leen di leen di leen yónni ak jëflante ak waxtaan ak ñoom ña ci ëpp ñoo xam ne nii yoon wee leen moom nga xam ne ni foo fekk xubra maanaam njariñ lu yoon wi moom nga dem jëli ko jariñoo ko waaye nag mësu cee boole waa këru boppam damay wax ni li gën a jafe ci àdduna mooy xilaafa ak doole ji ak wërsëg wi ak barke bi jaar sa kër ba génn te bàyyiwu fa ay dégâts loolu jafe na te sëñ Abdul Ahad ba ndëgën yi kenn ku nekk xam na ni ñam njabootu boppam di ay taalibey boppam yu àndaloon démb ak njabootu ak doy boppam seen yoon mësta nekk ci biir yoonu sëñ Touba wi këram daal ak yëfi boppam loolu la yoroon doon lañ ko lijjantiloo waaye la ci des nag moom ñam bokkal yoon wi la ko seqaloon loolu nga xam ne ba nëgëni kat naa wàllu diine waaye waa àllu waa àdduna sax ña ngi koy xul di ko ñaawlu ci nit koo xam ni la nga yor danga nga koo bokk ak nga téye ko yàgg ña yamale ko ci sa biir kër kon loolu sëñ Abdul Ahad doy na ci modèle ci ak mat sëñ Abdul Ahad doy na modèle ci ku yàlla yëkkati ba pare nga wàcc sa bopp te loolu lu jafe la yonte bi sa alayhi wasallam nee na man tawaadaa lillahi rafahahu ku wàccee sa bopp ngir yàlla yàlla yëkkati la nee na yàlla nee na rëy sama mbalaana ku ko xëccoog man ma fu ma fudd sa ndigg moo tax jaam bi lu gën a wàcc lu gën a yéeg rek la gën a wàcc sa jablaat nag da ca doyoon misaal ndax koo xam ne nii li tàmbalee ci président de la république ba ci planton bi gën a suufee ñépp la yaakaar ñépp di la déglu koo ci wax benn baat du ca teg dara te boo dikkee dëkk ba mu dëkk yaa ngi koy fekk ci pénc ma mu ferankalaayu ci suuf du lalu basang dara ci suuf lay ferankalaayu noonu nekk ci ron garab goo xam ne ni ker gaa nga yaraaxa yaraax mu ferankalaayu noonu ci suuf ñu ne la kii kat mooy ki àdduna si joobe boo dikkee ci këram wan ni ko man borom daraja laa nii laa toll boo dikkee moom mu ferankalaayu ci suuf toog def toog fa di la xaar kon sëriñ Abdou Lahad doy na sëkk modèle ci côté ci côté bu ne ñeme nga dëgg nag ak am nga fulla foo ko takk weesu na ko kon boo doon gàttal loo mën a lim lim na ngay mujj del siwaat rek ne Cheikh Abdou Lahad daal doomu sëñ Touba la mbubb la moo xam ne jot na ko sëkk sol na ko solin wu jekk liggéey na li mu war a liggéey ci côté yu nekk bàyyi nañ ñu fi nag doon am njàngat rikkawaay bu nu yam rekk ci di waxtaane ak baaxam ak la ko yàlla mayoon nekk na fi ba jóge fi mës wax boppam lim nu daa def rek mooy dinu teg ci yoon wi nga xam ne ku fi jari ci fi jaar jariñu te kum jamono ku nekk danaa ko faral di wax ku nangu ku nekk liggéeyloo na la ngir bëgg nga jariñu xanaa yow nga gàntu wala nga bañ waaye kenn ku ci nekk liggéeyloo na ngir fas yéene woon comme taseel jamono ku nekk mu jariñ la danaa koy faral di wax man mii li may ñàkk-ñàkk solo sant naa yàlla ci liggéey bu ma liggéeyloo jox ma kayit ne ma naa ko bindal ab kaamil ma yeex koo bind mu yónnee waat ma geneen kayit wax ndaw leen ne ko boo demee nga ne ko ab kaamil jëfewu ma dafa am na ma ko bëgg a fàggul rek moo tax kon kooku njariñ la loo xam ne nii lu la wot jaam yi li nga xamee ne noon la taw ak ngelaw matale një mat nekk ne ci mboolem jaam yi kon nag suñ demee ba jamono agsi fii gisatuñ kenn ci njabootu Sëriñ Tuubaa ñal yi bari woote yi bari ba ku yàlla defalul xel mën ngaa réer waaye sëñ Abdoulaat bu sol la boo xam ne buñ ca buñ ci xoolee duñu réer buñ ko wonee ndaw ñi itam ñu jël exemple roy ko lépp dana yëbén kon nag sëñ ji li jërëjëf olof lu mu léeg ku ko sañ demul lu xumb day tas parti politique yeeg yépp ci bokk yam lu xumb rek tas ak écrit yi ma ne ko ak lan mu ne olof daldi ne sàmba mun kanamam man gannaawam sëñ Tuubaa weddiwaat ko ma ne ko ak ban mu ne olof ne ku yalwaane teggi armel ma ne ko am ah, mu ne sëñ Bàmba rek ko weddi mu ne ko tojal ma ko mu ne lu xumb tas yoonu murit wi bokku ci màggal gu jot liy jébbulu day mujj inondé biir Touba su ne tarixa yëpp at mu jot nga gis ku ca jóge ñëw ci ñun te ñun jógewuñu fii dem fenn lu xumb tas sëñ Touba weddi na ko ñu ne sàmba mënul kanamam man gannaaw ci baas bii laa koy dindi duma dem fenn sëriñ jiiri mii ak yi mu am ak sëñ Abdou Khoudous mais li nu mën a regle bi sëriñ naa di tol ni ñoom ne ci sëñ Abdou Lahat mënu ko régler kon Samba man na kanamam foofu man gannaaw bii nag garaaw bii may bëgg a wax ku yelwaa ni lan teggi bu ñu la ko dee wax yu mbooro lañ lay wax ak yu caaro yeeg yu Pikine ak yu yëmbal mais armel yi Touba mi ngi tabaxi kër bàmmeel boo xam ni ko koy wattu fa lay jëlee lu muy defaree këram di ca joxe dépense jënd ci crédit booba bàmmeel boroom xelam a ngay dal ba ci kanam العالمين وكانني بالأفضل شيء رسولنا محمد صلى عليه وسلم مع سلام يحمد وصف بالمفضل بركة الماء الولي سانت ربي الأولين بالمالك المخول مغني ذوي التفضل يسر أحمد المكين قتل الذي لا ركان إلا كما لي سكون لمن كفاني مبني على النبي خير الأنام صلاه دان ساقتنا ورقد وقد آه

بيد الله لا إله إلا الله for the man. batakal na la ni daay baati amul ku kay tekki ku dul borom kum bayi jule daay baati amul tukki kundum baram kun siri seexuna baylaat amul kun koy tukki kundum baram kun mburum sëriñ Tuuba mane fu ko daa le takay ndondam fa pii diwaan takay ndambaam fat be yidiwa yaa wara san te yàlla ak yonin ba ngir fa taxaw rango ngëneeli Bamba te yàlla yonin ba ngir fa taxaw rango ngëneeli لم يكن بولد على بوالد فتاب قلدا نفى عني ما لم يكن بولد ولا بوالد فتاب نفى عني من لم يكن الولد ku jóg màggal daal ko jóg maraakib yal na nga bari xaalis. han hable kër Serigne Cheikhouna Mbacké قلب فيك مسرع تمسي في العجبان هبلي لك سما والأرى في والهواء ما فيني عسل كل وار تقلد مسار رجلا ومن يروم سبيها بسيق أحمد بنا يا من يروم سبيها بسيق أحمد بنا فسلم لا اله الا الله xam naa saxtu lamin jaawartu bil furxaani rabbiyal muhin malak awaawali safal janaan waalaaniyal abraaru fil oxraaya wan qaadali bilanti an qiraaya رافقني إلى الجنان نجيم ولي سواي صوصها رجيم ترسي عن اللهين والفجار كون بديع العالمين جاري أكرمني بديع بالكتاب وسانني عن جالب الإتاب لم ينؤني إلى دخول الجنة خير بسارات علي سلم لم ينؤني سجر ولا وحيد وأمري إلى الجنان إيد أخفى لي سر المصون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله وإن البديع وخادني له بأنواه البديع برأني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه برأني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه كوي مدمم ترنو إبرفاتي قلت ومن نسب بسل أبياتي kookoy magi maam Cerno Ibra Faati ki wax yi lay bayit da waxantoo mooy xaadimu rasul magum seexanta te mooy magum sëriñ ma sàmba mbàkke te mooy sëriñ bu mag bi fii fi mbàkke te mooy sëriñ bi julli woon ci géej gi diig boroomam delluwaat ci gaal gi te mooy ka Seex Ibra wëroon ba gis ko boole ruwaam ga jëmmam jébbal ko tamoo dajeeg noonee caama jëy sa ñu xuus gii ba caama dag sa ñu dem gabam dem fañu na maayomba te tiiwu koy durus di way yonen ba boobee la way mu na wiru su la daa manaasili wa inda duuri na sama oo xadiimu amma dag sa siin bëw min jëy sa li jag sa moo tax sëriñ daara ba seex moor moo jot ndigal sotti ko fii xirtaasi def fa salaam jami siñee ca booba jébbal ko seex fallu mu bég ca booba moo tax ba seex fallu foto jumaa ji def ca foto sëriñ bi ak jumaa ji def ca siñaatiiram di aaye njaay mi xam na ne lii amul ci réew mi am nañu naa sàppun mi na laxwaa mi wasabu asoori kasaalayaami ku bëgg xam luy coono bi ci téere kooko nawut mun a wéru sudduuri xar baaxi seex bamba xajul ci téere laaj leen ko kii kii nga laaj ko jéere xar baaxi seex bamba xajul ci téere laaji ko géej gi nga laaj ko jéere salaatu rabbina ala muxtaari وآلي وصحبي أغياري سبحان ربك أكيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك أولاك جزاك يا قندو جزاك يا قندو إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك أولاك فهلم bi annaka indi sooridan abadan wasakarib uka fi dunya wa uxraaka fadum ala sidqi wal ixlaas mujtahidan fi sirri wal diri kay tanuma sayaaka ma way ka fab ab deram lal géej ba julli mu mat te xablawul xiblab sëriñ saa ma way ka fab ab deram lal géej ba julli mu mat te ba xiblem sëriñ saa ngi ku dul sëriñ bamba bu jullee sax ci déeg dana diig bu deeg sayaan dana say ab diir sëriñ baa ngi ku dul sëriñ tuuba bu jullee sax ci déeg dana diig bu deeg sayaan dana say ab diir sëriñ baa ngi kii sax ci daaram la génne Ibra Faati saak Cheikh Ibra Fall ak borom gaawaan mbërëm yaa ngi li tax ñu naa sëñ bu mag bii duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon seerey jëfam yaa ngi dëkkam ba moo mag jumaam jaa mag am ngërëm gën a mag magam ñu naa ko magu mag sëñ bu mag baa ngi dëkkam ba mag jumaam mag am ngirim gën mag magam ñu naa ko magum mag sëñ bu baa ngi nangul na yàlla nangul yeneen ba nangu na nit ñi ñëpp nag ci nangoom gi njiit lu laa ngi loo sopp loolee da lay far soppi sopp na nag yàlla ak yeneen ba ñu dal koy soppi ma yaa ngi budul ko Bamba Afrique jaamu xërëm moo raadu lislaam ji tey jaa gii dugub yaa ngi banoon yàlla yi ne afrig bu kenn sëqat bambaani déedéet kudul moom noppi mbir maa ngi daa def na yonen ba def daa mu jawoote te aw nit sëriñ Bamba it lee tax mu jëm gaa ngi tubaab bi nag bu njëkkee woon sëñ bi kenn du xam jàmbaar yi ak ñii fi doon yëfu standard jaa ngi keroog ba ñuy signé tey siñ na allahu du boor bambaane allahu akbar yàlla buur baa ngi numéro 4 la Muhammad it arafia di 4 wallahu yansimu kuy laaj kooka tey maa ngi nee na sayam wi laa yanu tey seytaane yi bëgg far ngir mii maa bañ danaa waat wàcc waat gaa ngi billahi wallahi su Moustapha ak ñi ko roy danaa ko dundal dandal caaxaan yi gor saa ngi musam pu ndëndëm nee na mooy lislaam ji waaju ko fël ci lay mujjee fili samp bi yàlla buur baa ngi ku ñam li sëñ bamba ñam jam jam ya jam yaramam ku daj li bamba daj jam jam ya jam yaramam mbaa sax mu faatu ku naw sa mbër tubaab baa ngi moom rek a songoog tubaab bii nag lu ati at te at tewuñ ko tewawul wallu njool maa ngi te yokkiwul te yokkul derba seelitulit te yokkatul yuuxuwul kamil bu mat baa ngi mboolem ku toog tubaab bi wetti ngaw ñaq nag moom nag mu roo foog tubaab bi fët ku mbër maa ngi sëñ bambakat sëñ bambakat sëñ bambakat dafa songoog noonu yàlla yàpp diir nag bu yàgg te juumul mbër mu mag maa ngi maa yomba yumbu dem am ndam lu sell di kaat def leen ko mu ilimaan ni gaa njiit laa ngi ku dem ba jeewal te jéeloo lenn jaali wu ñuy bokkam du seen mappandoo ni leen ko mam yaa ngi ku dem ba dawme dammoo di faj seen aajo teg lu ci yoon ma wax la tuuti amagul fii nag amul ci feneen ma kenn musala laaj milliard diirub li muy dund doomam jenn musula yi dul njaboot gi bàyyi tool bi mu booy ci fii di Touba mu doon ay ndam yu sëñ bi bëgg ñaar ak ñett ñoo fi fesoon caag ayam ayam la Touba yokk wàll gu lu jiitu muy jiite Touba caag ayam lañu am corniche ak le Serigne Touba di am file kër lu jiitu muy jiite mbaarum sëñ bi sax amuloon caag ayam la deeri kaamilin sogaam lu jiitu jiite gaali sëñ bi moo fi amoon caag ayam la sët yooyu sëñ bi jupp aji lu jiitu muy jiite aslim nag sutuur la fi waan caag ayam la foraas yi di dem fukk lu jiitu muy jiite ab foraas la daaru ma naan takat bu foraas yi tuuta koy xaw a yëg baylaat bu paanaa tuuta fii mën a naan danaa la wax ikkami baylaat nga yéemu ci moom nga xam ne luqumaanu sal asri rekk la waan ne ñett moom ku ko bañ ñetta ngi nii bu ko am ne ñett moom ku ko bañ ñetta ngi nii bu ko am mooy jaam jabar doom su ngeen dégloo maraññali leen nee na ku bañ ko bañ de nee bul wut jaam nee ku bañ ko bul wut jabar ku say wax sax doom ya daa maguloon te daana wax it ne pësiif ak plan jege nañ ci kaw taw wuute ci biir pësiif a ngi téye leen pësiif ne pël plan ni meng nii la demee ngir yàlla kenn mënu koo nax gaa yi tuubi ji leen nee na yàlla daa bind ñett dellu sàkk ñett fab ñett teg ko ci ñaar déglul ma ràññale leen mooy doomu aadama ak jinneeg malaayikatu mu sàkk bànneex naqar am xel te séddale leen bàyyi ma am na naqar am bànneex te ñàkk na xel malaaka am xel te bànneex ak naqar amu leen moom doomu aadama moom kat ñett yëpp la ngir am na xel naqar ak bànneex it boole na leen tey bàyyi maa ngi ci suuf malaaka nekk ca kaw nit toog fi suuf baa mu jóg jëm kaw du jekki feneen nit nag bu toppee ci bànnee xam ba bàyyi ma la taam xelam man na caa dab ñee ba far kawe leen danaa fi tabal waxi sëriñ ba siiru ba tey ñoo bokk baay bokk am xel sëñ bi sedd leen danaa fi tabal waxi sëriñ ba siiru ba tey ñoo bokk baay bokk am xel sëñ bi sedd na leen sëriñ Basiiru dadaa wax ñaari raa ñu ngi nii riiricu réew rus mayokaat miim ci wax ji la man riiricu réew rus mayokaat miim ci wax ji la muñ mucc lii daala doon kay nag la sëñ si waxoon lii wax ji xel mën a sàcci nda des na yeneen yoo xam ni nii xula wax ngir mbir mu biire la woon ndax bisub juddoom la sëriñ Touba di wax ne dama yaakaar ci moom xam nga nag yaakaar yi sëñ bi du neen lee tax mu jëf nag lu tëjëf wax lu kenn waxul moo yegg yeggale ñam àndal ba xetali leen bu yàlla dee fay jëfit nit nag ci nit li xam sëñ sii di meeki rakkam lap nañ ci lim fi jëfoon gannaaw dafay xetaliw jàmbur ak i dëkkandoom kon doom yi ak soxna yeeg dongaam yi kenn waxu leen matlabul fawzayni matlabul fawzayni lam wax loola moo di mbiram ngir ñang na tuubaa jagal tuubaa ba kenn yabu leen murit gii fu yegg tey jii nag ci tubaab bàyyi laatde def na ca kam kattan ba xettali leen bàyyi laatde mooy ñàkki caaxaan dëgg rek la xamoon ki nekk buur kon baa doola xamewu leen neemam saxaar la fi ab rekk lay mën a dox taraay ba mooy jaamu yàlla ak jëf la sëñ bi bëggoon taraay ba mooy jaamu yàlla ak jëf la bi bëggoon lii tax mu jëf nag lu tëj jëf wax lu kenn waxul mooy yegg yeggale ñam àndal ba xettali leen lii tax ba waaja dikkee di fecc rek ci këram bàyyi laat ne waaja lii ngay def lan nga jublu ci woon waajooja wax ko ne day feeñal mbéga mu mu mbég moo tax ba muy fecc lii rek mooy li am du la neen bàyyi laat na waajooja boo faatoo ba am ñetti fan nga xam ne mag fa wàllam fecc teel na ci yéen mën ëb du ladde jubal laay def dama bëgg a dem ku bëgg a dem na nga fab say tànk teg ko ci yoon mboolem li nit ñi di sabbal yàlla ak di sikar ak lim bu toll ne feppi suuf ak asamaan yal na ko buur soppi muy xéewal ak i këri kër ca jana jox ko bàyyi laat jaar nga ca sama am mus la def lenn luñ naa accam sa maam mooy ku jàmbaari jub lool tey jubal ku jub tey ku dul moom jubal duy mbiram sa maam mooy ku jàmbaare jub tey jubal ku jub tey ku moom jubal duy mbiram nde moo ñëw ne tuubaa na sat wiccaran te lii may wutit saa bakkan mooy njëgam te kat booba ay mbër yu mag nag yu bew yu daa tëb fa tuubaa mu génnew yatam ku tëb rek mu fadd mu koolaa di soox bu dooxloo mu dóor yat wa rek ciw ndongam ba far wulli saay saay si bañ mel ni dër mu dër nag ne tuubaa na jiituy kemam mu far wulli saay saay si bañ mel ni dër mu dër nag ne tuubaa na jiituy kemam Cheikh Moustapha ilaa ci ngoo la jiita inna na duniya nu bayta bien talinta cheikh moustapha cheikh moustapha illaa jingo la jiite inna na duniya nu bayta bien talinta xawma ki muy nuyul ku mu doon waaye leer na ma ne kilifaam la gis nga yoonu murit ñu toog ba yàgg sëriñ saaliwu moom sëñ naa ñëw sëñ jiili nekkatul numéro un numéro deux la sëñ naa sëñ saaliwu doon un ñu toog ba yàgg sëñ abdulaat agsi doon doon un léegi sëñ saaliwu deux la sëñ jiili trois yoonu murit fi ne bu ko bu kilifaam ñëwoon moom mais léegi sëñ jiiri li mu doon kat Mbàkke jërëjëf ci teew bi ngeen teew ndax sanq ba tey dama naan ko Mbàkke jógal toog ci kaw mu ne ma damay bañ a toog di wàccaat ndekete booba moom yëg na lu ma yëgul xam na lu ma xamul c'est ablaat noo ngi lay siyaar baax ci barke sa bis bi yow bis bi gañe nga ci sëñ jiili ak sëñ saaliw moomu ñaari yoon ndax sa turandoo lañ koy defal waaye ñoom dañuy duggaat ci biir nag ñuy lim kilifa yi fi teew doog dugg ci waxtaan wi. bi léegi mu newaat dimbali ma ci diw waaye Mbàkke billaay boo ñëwaatee du ma kenn loolu moom na ko xam bu baax a baax ndeysaan seen maam Sëñ Abdu ku ko fekkoon fee mu ne ne ko Mbàkke ña ngi lay defal bis ca Mboro lan nga bëgg ku la ko ci defal bi jëkk day def lii sëñ jiiri def ba noppi 63 kaamil jàng nañ ko fi mbàkke bi nga ko jàngee ba noppi boo yemoon foofu mu doy defal nga sëñ Abdu Lahat lu bëgg ndax juróom benn fukki kaamil ak fi réew mi toll am na lum mu man réew yi ñu wër sax mën na koo aar boo ko waxee loolu ba noppi ne ko berndeel na nit ña Sëñ Laat soo ko ko laajoon dina leen ña fa ñëw nan berndewu ndax Sëñ Laat danaa wax naan man gan mi ngi tàmbalee ci tàngum raxasu Sëñ Laat boo boo ma doon ñaari nit seet si ko su lay indil raxasu ci ngay xamee ne yow war ngaa añ paan lañ koy def paan bu mag ndox mu bari nga naan waaw kii xanaa daa foog ni mbooloo la àndal ka indi añ bi ne la kii nii la nii la toll nii lay defe boo waxee loolu ba noppi nu bàyyi polémique bi tuuti nan nan dal tuuti ndax ci sëñ Touba lañ dugg nag damay résumer rek may waxaguma waaw damay ubbi bunt bi rek nu may nu tuuti ngir sëñ Touba boo ko waxee loolu ba noppi ne ko jàng nañ fa xasaayit leneen lu ko ciy dàqalaat mooy nan ko waxtaanal ci sëñ Tuubaa moom sëñ Abdu parce que keroog bi mu làqoo dañoo toog ay at dégguñu kenn ko wax sëñ Murtala Mbàkke ñëw ci sëñ Saaliw dal na ko waaw sàllaaw bu nu xamoon lii la de ñu téye ko fi muy wax ndax kenn waxatul loolu nag daa am lu ko ko may Sëñ Abdou Lahad dafa teel dafa teel a comprendre Serigne Touba te kooku rek li ñëpp war a comprendre gis naa léegi ñu lim ne tiijaan yi sax teew nañ ci baas bi aka na war gis nga Serigne Touba chrétiens yi sax dañoo waroon a fees baas bi ndax nu dal nu dal tuuti rek. ndax li tax ma wax ko mooy tarixa tiijaan yi nga gis raar na ngay gis tiijaan bu wirdu wirdu salaatu fatiha banaan la Seex Ahmat Tiijaan Sërif feeñu na ma Sëriñ Tubaa dane wirdi wilaati di ko wird di ko wird ba Seex Ahmat Tiijaan Sërif ne ma jox ma loxo sant ma gërëm ma ne ma àgg nga ci wird wi foo xam ni góor guy takk tubay dootu ci àgg te bu la nit nee Serigne Touba nee ko fu mu ko bind Serigne Touba wax ni tamam tali bi maa bihi tiijaan yi faaxat wa kuntulee bil may jaan yi raddiya an yi sibtuhoo tiijaan yi alay ritwaanu mu biddul jaan yi Serigne Touba nee na ma jóge ca wirdu woowu jël xaadir la jóge ñëw ci ya nee na wirdu xaadir bi ma ko sóoboo damay romb góor ñi par benn di leen romb ba sës ci seex abdu xaadir jilaani sëriñ Tuubaa ne lii kuntama faaxa bihi jilaani alayhi ridwaanu lasi axlaani radiya anni sibtuhu jilaani alayhi ridwaanu lasi axlaani yàlla ne ko bàyyil wirdu woowu wenn wu ci dem nag sunu boroom moo naan ko sóobul wi bu ko waree bàyyi danaan ko denc nga ko ci sa kamoot tëjal seetil leneen te gaa ñu bari bi nu agsee foofu xolo gaa bi nu foofu kenn ku ci nekk bi nga agsee foofu xolo Cheikh Abdou Khadir Jilaani àgg na ci yàlla ba bi muy bi muy agsi ci di war a doon xutbu zamaanu jamono àgg na ci ne mulku akbaru mulku laahi Cheikh Ahmad Tidiane Serif ba mag foofu dane sama ndëggul tànk li teg naa ko ci mboq doole mboq mbooleem doqi góor ñi imaam Zalzali Abou Hassan Zalzali nee na ngir jëmmi sëñ Tuubaa bu ma kenn jox addiya addiya bi ma soxla mooy nu déglu parce que fan yi man am naa xaalis wirdu imaam Abu Hasan Salsali Sëriñ Tuubaa nee na wirdu wi laa ko ba Abu Hasan Salsali ne ma man mi yoroon wirdu wi nekkatoo ci sama morom kon tee bàyyi ma jox la wirdu wi yem ci yow Sëriñ Tuubaa ne ko dëkk ci dëkk bi daf ma fee indiwul damaa bëgg kii xotti dëkk yi xottil ma sama dëkk bopp moo tax danaa ko bàyyi jom la teel a am jom boo ko bëggee sax da ngay am jom Serigne Touba boo ko bëggee ci sa xol da ngay am jom mu jóge ca wirdi yi gis nga militaire yi nekk bàngoo dañuy toog ba yàgg doon élève copral doon copral chef sous lieutenant lieutenant noonu la ñuy demee ci commandant dem colonel dem takk grade doon dem ba yilif armée bi Serigne Touba noonu la def ci yoonu yàlla yépp di leen romb di romb góor ñi romb ñëpp ba yàgg yàlla ne ko ñeenti ngir am imam Malik Shafi Abu Hanifa imam Anbal ñun waa ahlu Soodaan gépp imam Malik la ñuy jëfandikoo wirdi ya koy romboon Serigne Touba nee na kenn ku ci nekk dangaa ñëw ba fekk ma fa ma nekk jox ma sama wir sa wir sa ngir ne ma ngir mi toog naa ay jamono gisuma ko tan jébbal naa la ko ñu ne ko imaam Malik mun a jox na ma la mu yoroon warastani fiq imaami maliki alayhi ridwaanu karimu maliki ñu ne sëñ Shaafi mun a jox na ma la mu yoroon nafaxtani li kunta bil manaafi fa kunta li fiq imaami Shaafi ñu ne sëñ Tuubaa imaam an bal mun a jox na ma la mu yoroon yaa xayra xayidin xamidin xubida xat xuttali fiqe imaami ahmada ñu ne sëriñ Tuubaa abo anifa mun a jox na ma ngir ma mu yoroon wajaxta nii mun ka mun a latifa fa kuntali fiqe abo anifa romb na ngir yi romb tarixa yi yàlla ne ko loo bëgg mun a ko ñëw ci yow mun ne ko ñaar boo leen réussire aksi nu bokk sama sées bi mu ne ko yan ñaar mu ne ko alxuraanu karim ak rasulullah sëriñ tubaa ne kitaabu rabbi hadda anis yi min baadi kaw ni moustapha rahis yi karamatin wa mafxari wa jaahi kitaabu rabbi wa rasulullah dox gi ma dox bëgg a jëm ci ñoom te bëgguma lu ma gàllankoor tax na ba karamatin sama karama wa mafxari ak sama pukkare wa jaayi ak sama daraja lépp rek kitaabu rabbi wa rasulullah nee na ma téye Moustapha nee na li tax bokkuma ak gaañi tagg su ma mësaan jël xalima gi ba teg ci këyit gi bëgg a bind nee na xalima gi kiic kiic gi muy def ci këyit gi day yëngal aras ak ku tazal arsul baaxi wa sabaha almalayku ci baax xasida yi ngeen doon jàng alaaji Serigne Touba nee na bi nga koy jàng yow malaaka yaa ngi yëngutu di daanu yonent yi seen xol yaa ngi yëngu xaajat xasaidi xulubun anbiya mahal malaayikati inda rabbiya sëriñ tubaa nee na sama mbind mi moom la ñu orbité ars ak kursi makkaatiba te dóoru bay al arsi wal kursi te mooru may na nee na nag ma jàkkaarloo Moustapha rek di ko tagg dama koy tagg di ko tagg mu naan kenn su ma wax lii nee ma naan ko man zanna annaka tuqaakil basara wal jinna wal malaka lan yu basara aka siwaaka xayruhu min alwara wa anta xayril min ilai sawara matta ilayka laaw fatlan sahara kama ilayka haadama lam yusra mattu ko ah jësal lesi tafaqura ahmala ya xayral basiri sakara dawawtullahi alahil basara wa jinna wa anta xayril hëdal basara njol makka jël lu mu yoroon jox Sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko pareegu ma ki may tàmbali moom mu jox ma lépp te bàyyi pareegu ma nee na nee na nee na ma téye ko naan ko muhammadun mu majjadun mu jammalun mu kammalun muhammadun afdalul xalxulaa mu tuuxu mu tulaa taraaxulo xii na baaxi bi xalaa rutti baaxi nee na njool màkk ne ko nan dem ci kii ma daan may nee na may dox rek di ko way ba yàgg am ku ne ma ayaa xaadimal muxtaar ma ne ko gees mu ne ma fàtte nga saaba ya de saxaaba ya xaritu sëñ Abdou Lahad yooyu une mois sëñ Tuubaa nee na man a geesem ci Abubakar nan ko Abubakarin Siddiq zo sidqi wal wafaa rafihu nabiyun Mustafa xaaraan baw Babacar tekki médaille ya jox sëñ Tuubaa dindi garaat ya jox ñu ne sëñ Tuubaa xanaa diis nga mu ne damaa gestu yem ca Cerno Birahim ndaamal daaru muxti bàyyi mu daaw balla seexaw balla moom lañ jox gratis Seydina Abubakar Siddiq nee na mën a gees yem ci kan Seydina Omar Omar naan kii lan la ma war a wax Serigne Touba naan ko abu asfin alfaraaxu sherwaaw ni diirun biis tasa diinu Moustapha yéesa sa u Omar tekki médaille jox Serigne Touba dindi gratis jox ko ñu ne Serigne Touba médaille Omar koo jox mu ne ràngal naa ko Ibrahima Fall lamp Babul Mouridine sa maam sëñ jiili samaam bokku ci de nee na mën a gees yem ci Seydina Ousmane Ousmane xool sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa naan ko a fii say bii ndax am naa afaana salaaya la wa nuuru suma nuuru nixmal mu bayu Ousmane tekki médaille jox ko ñu ne ko médaille Ousmane koo ko jox mun a naa ko sëñ gaawaan maam Cheikh Anta borom jannati lal jannati ministre de finance de Cheikh Ahmad Bamba confirmation de Dieu sans intermédiaire Cheikh Sidi Moukhtar borom Daaru Salaam ak gaawaan nee na mën yem ci Seydina Omar Alioune Alioune di xool sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa naan ko abu sibtil maxtaaril wahuwal ibnu anmihi alliyu ala faqira man mu jara dara li ma kii wax kenn mësuma ko wax waaye kan lañ jox médaille boo demee Màkka Alioune mooy boroom xam-xam waaye boo ñëwee Mbàkke sëñ Masamba am xam-xam Cheikh Ibrahima Diop almashaari ne ma Masamba kawe ñu ne ko bindal mu ne faaxal afadilu ahlul juudu wal këram yi sëriñ ma samba mbakke kasilin wal ikam yi sëñ ma samba mooy fatan fatilum labibun xarisun yaqisun nabbun xarisun ala taati wal xidam yi sëñ ma samba mooy badrun munirun jawaabun xalamun xuma tëkkulu muridin sadiqil faj mi bismillahi rahmani rahim sëriñ jiili abdoulaat sama ma dis gor moo tax ba ku am ngor moo tax ba ku am ngor nekk as gor yow seexu jiili sama amadis gor moo tax ba ku am ngor nekk as gor yow seexu jiili sëriñ jili seexuna abdoulaad yaa baax ku bëgg sëriñ jili jógal taxaw ca kaw bu ku ko def yàlla na nga tàggoog bàkkaar seex jili yaa baax te mbàkke sag baax moo gën a baax baax yow seexu jili seex jilim soxna moomi ku sopp sëriñ jili defal ni ñu màggal jàmbaar ja seex jili moomi seex jili moomi sama ma yéeme jëfam yéeme yow seexu jiili ku bëgg baapam te bëggi mbookam te gëm boroomam mooy seexu jiili ku gëm sëriñ bi xam tuut ci sëñ bi tey wane sëñ bi mooy seexu jiili ku sopp sëriñ ji seexu naa sëriñ jiili mbàkke ku gëm sëriñ bi la moom te xam loo tuuti sëñ bi tey wane seen bi mooy seexu jiili ku baax te laa bir ku yaatu lool xër te bete am ngor mooy seexu jiili day wuy woote mbaa mu woote du fekke joote moom seexu jiili du jàlli kuy laaj di tijjit kun tëj doonul ku ñuy ñaaj ku sopp sëriñ jiili moom seexu jiili ku gaaw ci xat-xat fat aajo fat fat mbàkke danga yow seexu jiili mbàkke damay ñaan ku dir jullit ñaan loo songu rek daan ji ci barke jiili sëriñ jiili seexu naa Mbàkke damay ñaan loo songu rek daan daan ci barke jiili